passer un jour ensemble, je veux plus que ça. Et tout le week-end, tu t'en es. ak teewlu seen chaîne mbégte lay nekk saa su ne ñu ñëwaat ci seen rendez-vous si près si loin dans ce beau cadre de l'hôtel Colonia ñu nekk ci weeru octobre ku ne octobre nag sa xel dafay dem ci octobre rose looloo tax tey ñu nar a waxtaane ak kan Fatou Fall c'est la présidente association solution pour la lutte contre le cancer tey ñu nar a ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy expérience bi mu dund ñu war a lancer aussi li nga xamante ne moom mooy le plaidoyer maanaam sensibilisation bi jëm ci askan wi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy teewlu tey waxtaan wi ci benn ponk rek la la lutte contre le cancer rawatina cancer du sein ak cancer col de l'utérus bi nga xamante ne mi ngi sonnal ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi ndax. am na kenn ci koo xamante ne ci kilifa yi la lancé na tiire na sonnette d'alarme ci benn ndaje boo xamante ne amoon na fii ci Ndakaaru mu ne lu toll ci mille nouveaux cas at bu jot dina am ñu xamante ne boppu cancer daf leen di dal cancer nag de façon générale te ci ñi am cas yooyu at mu jot mille doomu aadama fii ci Sénégal dañu ciy ñàkk seen bakkan donc jot na ñu toog waxtaanee ko rawatina ci wàllu sensibilisation bi cette fois-ci ñu ànd ci ak sunu gan Fatou Fall duma def lu dul bàyyi leen ngeen suivre li nga xamante ne moom mooy arrivé fii ci sa bokkaat bu ko defee ñu daal di tàmbali laa ci tontu allez c'est parti. Les mecs mbokk yi xarit yi ni ma leen ko waxee woon sànq à de mes tey ñu amaat mbégte ak contenté. dellu siwaat fii ci seen émission si près si loin ñu ngi ci weeru octobre ñuy rendre hommage à ces femmes ces braves femmes qui se battent contre le cancer rawatina le cancer du sein mais aussi duñu fàtte le cancer du col de l'utérus loolu moo tax tey ñu dalal fi ko xam ne xëy na le grand public xamuñu ko bu baax waaye elle s'est battue contre cette maladie maladie boo xamante ne bu sournoise on peut le dire ba léegi mu toog fii taxawal ab association dippee ko la solution euh, boo xamante ne dafay xeex contre le cancer tey ma mbégte looloo contenté wala waxtaan gën leen xamle ak Fatou Fall Fatou ginnaaw bi mu la nuyoo dalal la jàmm maa ngi lay ziar rafetlu ni nga ñu nangu nangulee sunu invitation di la bàyyi aussi nga nuyu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw macha allah di rafetlu ci invitation bi di ci am contentement. di nuyu fi ma jógee. Mhm. muy Liberté 4 sama kër bàjjan di nuyu képp koo xamante ni téléspectateur de cette TV di nuyu fi ma bàyyeekoo muy Podor di nuyu suñu xalif général Cheikh Baba Ndiong bu El Hadj Baba Ndiong ci Podor. Mhm. ñoo ngi koy nuyu di ko ñaar yàlla yal na yàlla guddal fanam. bàyyi ko fi ba si kanam suñu kanam di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek di leen nuyu yow Adja Biteye ak sama càmmiñ ñu gunge di leen nuyu di kontaan ci invitation bi wax dëgg yàlla kontaan naa ci trop. si weer bi ngeen ñu invité muy weer octobre mu nekk suñu weer ñu ci kontaan trop di leen jaajëfal. merci beaucoup Fatou alors yaa ngi koy wax balaa ñuy ñëw ci sa combat dañuy ñëw d'abord gën la xamle ak téléspectateurs yi. Mm. ndax loolu moom mooy solos émission bi. tout à yaa ngi wax Podor wax ba wax Baba Ñongo foo kooku ñëpp xam nañ ko foofu ca Podor d'ailleurs il y a un lycée qui porte le nom. Mm. Euh, boo ñuy wax un tout petit say début sa cosaan fan la. waaw man nag maa ngi cosaanoo maa ngi juddoo Podor. Mhm. dëkk bi ñuy wax Podor laa juddoo màggee Mauritanie parce que damay wax ni je suis mauritanienne sénégalaise. nan moo la yóbbu Mauritanie c'est parce que c'est vrai presque frontière bi. frontière parce que sama sama sama maam bu jigéen ku jur sama papa fa la nekkoon. d'accord sama ñoom papa dañu am nationalité mauritanienne fa lañ nekkoon. Mhm. léegi pendant les événements lañ ñibbi Sénégal. mais presque damay wax ni bu ma amee ak. ak lu topp laa dem Murtani ànd ak sama pap ak sama maam falaa nekkoon sam maam moo ma yar fa laa nekkoon sama maam fa laa jàngee école ba sama sixième année collège événement 89 ñëw mhm. ñu mujj ñëw Podor ma àggale jàng bi tuuti après jàng bi mujjul continuer parce que sam pap dafa teel a gaañu bàyyi ma ak samay rak yu góor euh, combat bi xawoon metti ma doon jàpp si combat bi noonu ak sama jàng mënul woon ànd mhm. ma teel bàyyi jàng di wut xaalis dama doon léttu aussi am si jëkkër pour mën a pour sama rakk yi mën a tëb man même bu dee sama carrière mën mënuma am dara ñoom ñu am dara ma bàyyi jàng bi di leen épaulé ñoom ak sama maam sama maam jàpp si combat bi waaw. d'accord alors dañuy ñëwaat ci étape bu Mauritanie bi balaa ñuy ñëwaat bi nga dellu si parce que bu ñu nee 89 ces événements tragiques la bi amoon euh, coow diggante Sénégal ak Mauritanie des pays frères. Euh, donc vous êtes très jeune donc 89 presque yaa ngi yaa ngi wax ne yaa ngi am 6 ans mm, lan nga ñu mun a wax ci euh, souvenirs yi nga am fële ci ci Mauritanie. waaw Mauritanie moom damay wax ni souvenirs yi fa am bëri na parce que presque dama ne la bi mu amee ak ak genn wàll laa fa dem parce que falaa laa màggee fa amee sama en 36 bi may def sama première année collège la événement bi ñëw. d'accord ça veut dire que amoon naa. 11 ans 11 ans 12 ans presque 11 laa amoon ci événement yi pour ñëw côté bi mhm. ñëw Sénégal parce que ñun Mourtani lañu gën a xam ko Sénégal sax. d'accord sama feebar bii ma amoon nii moo taxoon ma gën a ñëw. mun mhm. a mën a toog côté bii daal ak ak association bi nga xam ne dama ko créer pour mën a sama mbokku jigéen ñi génn faju moo tax ma gën a toog Sénégal mais man Mourtani laa gën a xam ko Sénégal. d'accord ah. alors Mauritanie événement tragique am vous mm-hmm. étiez obligé ñëw mm-hmm. ndax aussi Mauritaniens yi nekkoon fii dañ leen jëlee fii yóbbu leen fi nga xamante ne moom mooy Mauritanie mm-hmm. euh, mais yow nga juddoo c'est vrai Podor mais Mauritanie nga gën a gimbee war a jógee Mauritanie dellu siwaat Podor changement boobu naka nga ko dundee c'était un peu difficile ou bien waaw xawoon na metti nag xawoon na metti xam nga am na jaar-jaar yoo xamante ni du ma si bëgg ñëwaat mais xawoon na metti mais amoon ci naka yan yan yan yan souvenir la lay fàttali ba nga xamante ne doo si bëgg ñëwaat non souvenirs yi bëri na daal xam nga des fois da ngay am yoo xam da nga koy éponge doo si mën a jaar mais xam naa daal euh, affaire bi xawoon na métti xam nga kër bu teguwaat ci kër day métti parce que bu ñuy déporté dañu dañu indi en tant que réfugié indi ñu waat Podor mais bi ñu indee Podor da fekk sa maam amoon na fi ñun fu ñu dëkk d'abord Podor parce que kër gu mag la mais ku nekk am nga fooy dëkk sama ñoom maam dañ fa tabaxoon foo xam ne bu ñu ñëwee mën nañ fa dal mhm. ñun ñëwee dañu ubbi suñu bâtiment dugg ci bâtiment bi toog mais ñu amoon suñu benn maam boo xam ne moom la ñu àndaloon ak jabaram ku baax yal na ko yàlla yërëm te xaaral ko aljana muy Pa Samba Ndiaye nit ku baax la woon dëgg yàlla yaataloon ji gi mook jabaram ak njaboot gi parce que famille boo benn famille la mhm. parce que ñaari maam yi rek ñoo bokk ndey ak baay mais famille la njël gi benn njël lay nekk mais en général dëkk bi dafay metti parce que li nga doon am sa kër doo ko am mhm. dund bi ñu doon dund dafay changé parce que xam nga ñoom dañ leen fekk ñu nekkoon ñoom à l'aise benn kër la woon ak seen peu de famille beneen famille ñëw teguwaat si xam nga bu ko defee dund bi day xaw a metti mhm. mais ñoo ngi ko doon gérer aussi ak euh, famille mais metti woon daal mais sant yàlla rek mais man man man dama teel a ñafe dama teel a nit koo nekk nit koo xamante ni dama teel di yëngu si affaire jënd ak njaay wala di létt létt dama gaaw a daal pour am xaalis. d'accord dama gaaw a létt dama doon toog bëccëg di comme suba su ma yeewoon nii mën naa toog 9h ba minuit maa ngi toog di létt du ma bàyyi temps yu dara bàyyi moo xewoon mën naa si létt 5 bopp 6 par jour. pour am rek xaalis teel nag teggi ndékki bi si kaw fi ñu nekkoon kër gi nekkoon dañ doon jox ndékki dama ko teel a teggi. di jox parce ñoo leen doon jox yéen ndékki doon jox ndékki añ bi foofu la reer bi foofu la woon. d'accord waaw mais man dama teel a lu bëri dama ko teel a bañ man. d'accord nga commencé di létt. commencé létt dem ci benn borom bitik benn baax ma ne ko dama bëgg def fii xaalis ndékki bi di ko teg fii mu ne ma mujjee yow xale bi fan ngay amee xaalis ndékki man ko papa damay létt bëgg nga may jox suukar ak kafe ak meew mais su ma léttee rek naa ñu verse la boo ma ñëw wax sama maam mun ma yow da nga ko attan joxe ndékki yow da nga dofal lan moo la dal ñëpp man ko doon la ndékki bi dañ koy arrêté man damay jël ndékki bi paa bi gëm paa borom buti bi gëm ma saan ma tam paa bu baax la jàppale ma xam nga temps yu paquet suukar bi ngi doon jël à 750. Mm-hmm. goros bi ngi doon jël ay ay 2500 et quelque mu jóg may jënd par goros jënd ay poto café yu mag jënd teg. waaw ah, noonu laa doon defee bopp ñaata nga daan je ñaata nga daan léttee. bopp 1000 francs lañ ko doon léttee. bopp 1000 francs des fois am ku la ñu sax ne defal bopp 500. xam nga comme pomme bi demeewul noonu surtout au niveau de Podor. Oh, comme nii instant bi xaw a métti. chaque jour mun nga wàccaan ak 2500. des fois wala plus des fois ma wàccee 4000. 4000 des fois ma wàccee 5000. mooy des la xaw ma. waaw ah. boobu ay live yooyu. dama ci gaawoon. d'accord taf taf foo ma fekk maa ngi sol sama kilo toog taf taf damay létt rek di <laughs> daw alors euh, moment boobu vous étiez jeune parce que moment boobu amagoo woon 15 ans léegi nga war a jàng parce que say moroom ñi ngi jàng c'est vrai. Mm. yaa ngi yaa ngi ci létt bi war a wàcceel seen waa kër li nga xamante ne moom mooy ndékki en attendant añ bi ak ak reer bi. Mm. nga war a jékki-jékki tey say études say morom di jàngi. Mm. loolu qu'est-ce que cela vous a vous a fait. jeune fille moment boobu. metti na ma parce que même sama maam bi ñu nekkaloon xam nga moom enseignant parce que ñun suñu kër presque ñëppay jàngale parce que suñu maam bi enseignant la moom moom Samba Ndiaye boobu enseignant la même man bëggoon na ma dugal si enseignement man maa mujj bañ mais moom même professeur dañ ko doon woo ni ko kii xelam dafa neex tax mu bàyyi jàng mu ne loolu moo ma jaaxal wax naa ba sonn mais moom bëggatul jàng parce que instant boobu man aussi bëggoon naa am jëkkër pour am lu ma mën a stabiliser sama sama frère yi pour jàppale leen. parce que amoon naa benn instant boo xamante ni lenn xawoon na ma metti sama rakk yi waroon nañ dugg néegu góor kenn duggul leen woon néegu góor affaire bi nekk lu ma metti woon metti woon trop bëggoon naa xale yi dugg néegu góor dugguñu woon après par la suite seen benn ñi jaay ku ñu wax Moustapha Mal mujj dugal leen néegu góor waaw mais pourquoi coûte que coûte nga foog na yow peut-être li la siy génnee ci jafe-jafe yi nga nekk sëy la waaw parce que xale yi dénkaan la woon dénkaan la woon lan ci man sam pap bi ma leen dénk maa ngi am presque huit ans sept ans parce que sam pap mi ngi gaañu en 2006 man maa gën a xam sam pap sama rek yi xamuñu ko mu ma dénk naa la samay doom sama maam ni ko kii li nga koy xamu ko mu ko kii sama doom la xam li ma ko wax xam naa moom dégg na ko nañ bàyyi souvenir yooyu waaye laaj ma leneen kii alors euh, parce que Fatou il faut ñu il faut ñu xamalee. Uh-huh. combat bi ngay mënee lan moo ko lan moo ko waxal gëm-gëm beeg yooyu. Uh-huh. Euh, moment boobu vous étiez jeune c'est vrai pourquoi amul woon est-ce que amul ku nekk sa wet bugg la peut-être euh, gëmloo ne la grâce à à vos études mënoon nga si génn pas pas seulement nga am boroom kër. xëy na mun a jàppale sa non wax dëgg yàlla man sama maam bu góor bi bëggoon moom ku nekk ci wetam da ngay jàng. parce que moom jàng rek la xam. moom jàng rek la xam bu ñu ñëwee ñun ñu jóge woon événement ñun ñëpp daf ñu dugal école pour ñu jàng mais man maa bëggul woon jàng man maa opté woon pour am jëkkër pour sëy pour mën a jàppale sama rek jàppale sama maam waaw. d'accord alors comment s'est fait la rencontre avec votre mari. waaw ñun ñoo ngi gisee ci dëkk bi foofu la ñu gisee Podor foofu la ma gisee temps yooyu amoon naa ñu bëri ñoo xamante ne bëggoon nañ ma comme mariage ñu bëri ñoo xam ne bëggoon nañ ma comme mariage mais par la suite. yàlla def ma ak moom yàlla àtt suñu diggante ñu sëy alors mais est-ce que sëy boobu arrangé woon na li nga xamante ne c'est-à-dire espoir yi nga ci amoon ak yaakaar yi nga ci amoon pour jàppale say rakk ñu am au moins kër peut-être bu ñu nekk mun a ndékki mun a añ mun a reer est que loolu yëpp amoon nga ko ci moment boobu. ci mariage parce que xam nga ñoom avant ñu lay takk dañ lay dañ lay gëm loolu dañ dañ lay wax dañ lay wax lu ne dañ lay gëm loolu ne mais après par la suite am na yoo xam ne amul en tant que jeune ma dugg si après man dama si génnaat parce que li ma si li ma si kii woon aw si. Mhm. li ma si bëggoon après dafa mujj am ay ay yu sew sewaan si biir daal. Mhm. yoo xamante ni man xalaatu moom loolu dina am sama diggante man ak moom après par la suite dañu mujj tàqalikoo man ak moom. d'accord alors ngeen tàqalikoo euh, parce que sëy aussi noonu la. ànd am na tàqalikoo am na ànd am na mhm. euh, bi nga tàqalikoo ak sa borom kër. après euh, qu'est-ce que vous avez fait da nga continuer nekk Podor ba léegi wala après da nga fi jógee dem feneen. non dama dellu Mourtani. da nga delluwaat Mourtani dama delluwaat Mourtani parce que moment boobu situation bi stablaat na. waaw boo fekk sama maam dem na xale yi commencé nañu jàng ma dellu Mourtani jël sama rakk yi ak sama sama ñaari doom ma yóbbu leen Tiwaawoon sama papa sama rakku papa. d'accord ki sama papa bokkal ndey ak baay moo nekkoon tay ba. Mhm. ni ma comme que yow da ngay dem Mourtani dem di dellu si di dem di jaay di ñëw. bëggoon naa nga indi xale yi ñu nekk ak man boo demee ndax sa xel dal ma jëlee xale yi yóbbu leen Tiwaawoon sam pap sama rek pap ñun moom lañ gën a miin sax ak sam pap parce que moom lañ gën a gimmee ak sam pap que moom tam bu ñëwee événement dafa ñëw mhm. parce moom tam dañ ko jëlee jouéraat indiwaat ko parce que temps dañ doon seet rek ku am ne à Saint-Louis wala ne à quelque part rek ñu déporté la indi la même boo amee même boo amee nationalité mhm. dañ lay delloo si d'accord après ma yóbbu xale yóbbu leen Tiwaawoon ñuy dem podoor dem Tiwaawoon di vacances ci Podor ba yàlla def moom tam yàlla def li gën mu génn àdduna en 2006 sama papa 86 moom 2006 la génn àddina ñu dellu si waat Podor mais terewul man maa ngi doon def samay njaay di dem di dellu si dem di dellu si Murtani podoor Dakar indi bagage ak yooyu di jaay jaay bu sew jaay naa géejee jaay naa tiir lu bëri jaay naa ko daal dama fighting dama jaay dama dama teel a dama teel a am responsabilité parce que mënoo yar ay góor fekk doo toog ni yàcc tamit mënu ma ko woon il mm. fallait que ma daan sama doole yëngu xam nga mais ñu nekk Mourtani par la suite ma delluwaat Mourtani par la suite ma dem maa ngi fa doon liggéey sax ma jëloon nañ ma comme homme sécurité à l'Union européenne nekk naa fa am naa fa cinq ans wala six ans maa ngi doon liggéey si ñoom dama naan sama feebar bi ma am ni sax xëy na si ñoom laa ko war a jëlee parce que dafa am benn machine boo xam ne dañ ma ko dénkoon am ay rayon solaire yu si doon dox. boo may waaw man lañ man lañ parce que médecin yi wax nañ ma ko. mais boobu da nga doon assurer sécurité nga ma wax léegi. waaw sécurité laa doon foofu doo dugg ci bâtiment bi te jaaroo ci man te ñoom tubaab bi amoon na man kóolute koo xamante ni mënoo dugg bâtiment Union européenne tey parce que même ambassadeur doon wax ni su ma nekkee ci porte boobu lay gën am confiance tranquille parce que xam na kenn du dugg fekk seetuma ko. d'accord alors loolu day andi ma wan benn image rek. bu ko defee ñu dugg ci li nga xamante ne cette fois yi moom mooy combat bi ngay mënee. Euh, ñi ngi weeru octobre ñu jagleel ko li nga xamante ne moom mooy cancer du sein sa feebar. que euh, naka la la apparaître peut-être sentiroon nga ay signes d'abord parce que dañuy tàmbali ci ci ndorteel li euh, sentiroon nga ay signes mais ban démarche nga def. balaa ñu lay euh, déclarer ne euh, vous êtes atteint de, euh, du cancer. waaw parce que man mais yi nga njëkk a sentir feebar bi naka la la dikkee. parce que man après laa xam signes yi signes yi daawoon naa ko dund mais xaw ma ko woon. d'accord après bi ma feebaree comme ni ñuy toogee ñun malade ñuy toog di waxtaan boobu ngay xam ay signes yi ku nekk di nettali ki nekk di nettali lii daloon na ma lii xamoon naa ko lii defoon naa ko lii def ma doon kii ak yooyu mais amoon na temps bi ma damay jékki benn instant. su ma lekkaan su ma lekkaan nii mën naa wàcc boo wàcc li ma wàccoon li ma lekkoon démb. vomissement la la doon njëkk a feeñoo waaw dama doon wàcc wàcc yu métti. ba am ñoo xam dañ ma doon jiiñ ni dama ëmb. am naa nit yoo xamante ni wala su jën xeeñee wala yenn ëdëy rek teg damay daw comme que ëmb. mais man xam naa sama boob xam naa ëmbuma dara jotuma. et ça ne vous a pas inquiété. non non non non que xam naa dama ni après xam nga ni ñu doon la affaire u saan la. parce que man dama bëgg affaire sucre. bu ay glace yooyu ay gâteau yooyu xam nga dëkku maam naa rek boo fa nekkee suukar yeeg yooyu gâteau yooyu dañ ko doon lekk ak yooyu xam nga. Mhm. ma ne xam naa loolu la damay dem des parasité wu bàyyi par la suite mu dajeeg benn weeru koor ma jël congé ma woor ko bi ma ko wooree nag affaire bi ma ñaan suñu borom daal affaire bi mel na lu dal bàyyi ma wàcc bi arrêté te dama ñëwoon pour ñëw dakaar pour def consultation. Mhm. mais ma woor weeru koor bi après affaire bi dem gisatuma ko. ma bàyyi ko ndekete affaire yi signaux yi ndekete parce que ñu ni maladie bi mën na nekk si yow 10 ans doo ko xam. d' ngi nekk sa yaram 10 ans di dox doo ko xam. Mhm. mais man sama bos man maa ko détecté sama bopp. comment parce que xam nga médecin en général dañ la wax boo gisee mbaax bu pare da nga war a def palpation de sein. oui auto palpation de sein dama ko doon def. man foo ma fekk maa ngi palpe samay sein di xool ma xoole gis benn boule boo xam ne xaw ma ko ma dem def diagnostic mu faussé ñu ni kyste la. mais mais diagnostic boobu fan nga ko defee exactement. maa ngi ko defee maa ngi ko defee à Matam. Matam nga ko defee xam nga man aussi je maatam Matamoise. parce que sama papa waa Matam la. xam nga ñun dañu am tànk yu bari daal suñu tànk dafa am nit ku ñuul sa sa ñeenti maam duñu bokk. donc temps yooyu yaa ngi Matam. dama demoon seet sama ñoom papa Matam ci district sanitaire bi wala peut-être hôpital régional bi hôpital ba laa dem. d'accord hôpital régional bi nga dem. ñu jag ñu la kyste ñu ne ma kyste ma toogee quelque temps pendant Covid bi. et c'est un médecin qui a fait le lépp laa def lépp laa def chirurgien tout ñoo ma consulter xool ma. ñu ne kist la ñu ne ma kyste la. d'accord mais man bàyyiwuma continuer ma continuer daje Covid bi ñu jox ma rendez ñu ne mois de mars en deux mille. Euh, mais joxoon nañ la traitement quand yaa ngi doon traité li ñuy li ñuy ñuy dippee kyste alors que non joxuñu ma benn traitement nag dañ ne ma kyste la rek après d'ici mois de mars naa dellu si waat naa xool hôpital bu ma gën a jege man leen parce que am naa sama benn frère bu nekk Tivaouane kon est-ce que duma dem ñu ma waa am na ay docteurs yu nekk Tivaouane mën naa leen dem ñoom la ñuy faj affaire bi après avant mois de mars bi après covid bi ñëw léegi yow hmm. yaa ngi sentir kyste dem nga rassuré nañ la nee nañ la kyste la est-ce que moment boobu yaa ngi doon am ay traitement ay médicaments parce que xam nga ñun aussi dañu ñemee automédication. xaw man tamit au Sénégal jëluma benn médicament. parce que bindul ñu ma médicament jëluma médicament. mais man xam naa kyste ni mu koy déggee même bu dee tuuti laa jàng xam naa kyste dafa war a bouger mais ça ne bouge doon évoluer. sama xel tey ba léegi ba léegi mi ngi gën a grossir. waaw parce que mi ngi màgg boule bu ndaw loolu muy màgg su ma defee yenn mouvement yu diis fóot wala. def dara damay sentir mu mel ni luy évoluer ma ni koon lii du nekkul li ñuy wax parce que kyste ni ma koy déggee ni ñu koy jàngalee kyste dafa war a di bouger wala jàpp même déplacé benn place la toog après boobu laa tiit nag ma ni man il faut ma forcer dem si médecin yi nekk foofu forcer xool ndax dinañ ma jàppale. ak ci waawoon. ah Mauritanie même. après nga delluwaat Mauritanie. Mauritanie laa boo jógee Matam Mauritanie laa delluwaat. parce que foofu laa basé wu. foofu laa basé samay doom fa lañ nekk. sama maam fa la nekk. léegi nga dellu Mauritanie ma dellu Mauritanie dem toog foofu bi ma fa toogee nag affaire bi commence di évoluer noonu affaire bi jaaxal mais du metti man sama bos méttiwul parce que cancer dafa bëri ay type am ñoo xam ne seen bos day metti am ñoo xam parce que ñoo xam maladie sournoise la effectivement day jékki-jékki di kërëb këb mhm. mais man bokk naa si ñi nga xam ni yàlla defal na ma sudoro mosuma si jàmbat ay affaire di jooy di tëdd guddi du ma nelaw mosuma dal wax dëgg yàlla maa ngi laal bant suma dal vraiment. mais yaa ngi doon sentir quand même que bi. mi ngi évoluer gën a évoluer. après par la suite nag laa dem si benn euh, gynéco Fatoumata euh, Abibatou Ba sama mbokk la euh, mu ngi nekk hôpital militaire ma dem ba seen kër seen kër laa dem. hôpital militaire ban parce que il faut ñu xam exactement. hôpital militaire bu Mauritanie bu Mauritanie ba léegi. mënuma léegi comme que lii affaire bi kyste la kist lan la wax il faut ma boole laag waa urgence ñu opère la. léegi léegi daar daar ñu opéré la parce que moom sama wax la gëm ak kii résumé médical bi ma ko woon man kon yow il faut ñu opéré la kon gis la il faut ñu opéré la dem gis fa benn professeur munoo mënuñu la opéré tant que defoo biopsie opéré la nii rek munoo nekk il faut nga def biopsie ñu xool ñu def biopsie affaire bi leeru ma defaat biopsie génne cancer bi. naka lañ la ko annoncé. man sama annonce. si cancer bi ñoom ma ko annoncé buntu bloc Mauritanie benn hôpital buntu bloc laa taxaw di xaar ñu woo ma pour résultat yi génn waa ji ñëw ni ma ñu ni da am cancer dañ lay opérer. c'est comme ça qu'il vous l'a dit. nii la ma ko waxee. moom médecin la lan la woon. ou ki la jox résultat yi rek la. moom technicien la xaw ma lan la daal fa la nekk daal waaw mu ne ma daal moom aussi jàpp na pour ma gis professeur bi sama mbokk parce que foofu sa mbokk sa mbokk moo fa doon parce que sinon ak Covid bi mënuñu la ki urgence rek la ñuy laal sinon du ñu laal kenn après nag moom mu jàppale ma ba ma gis parce que euh, madame Abibatou Ba dafa bindoon benn jox ma ko ma dem foofu jox ko ko après moom moo doon def marché kii bi. Euh, véhiculation en fait waaw moo la moo la doon jàppale mais quand il vous annonce tout de go comme ça da nga am cancer du sein. Hmm. ci saa si lan nga sentir qu'est-ce que vous avez senti. Ah, man kay def mel ne yaa jël hôpital bi yan ma ko. dama jaxasoo mais dama am sama benn xarit sama ami d'enfance mi ngi foofu ci hôpital bi lay liggéey ñu koy wax Awa Diop parce que dafa ñëwoon di ma seet si moom résultat yi ñëwoon man ko déet mu delluwaat place bi ma waxee loolu bi may wàcc escalier yi sama tànk yaa ngi maa ngi mel ni kuy tërëf parce que xamatuma xaw ma kan laay waxal sama tànk yaa ngi tërëf après ma wàcc après moom sax nee ma lii du dara même sama même sama jabar moom la parce que instant boobu hôpital dafa fees amuñu ñu am sax temps xëy na pour expliquer man noonu laa gisee mënu ma xool même sama jabar loolu am dañ ko opéré mais amul problème professeur Abdi mën na la opéré léegi nga tane xaw ma la demal nga fay sa ticket ñu programme la kii moom bi ma ko wax facilement comme feebar bi amul problème daal ma wàcc dem ci aw jub dajeg muy ñëw si man mu ma lan la ma ne ko ah nee nañ cancer la am rek mu téye ma man ma lan mooy cancer cancer du dara cancer dañ koy faj diw moom la am. mu dellu si waatal la. diw moom la am diw moom la am lan mooy cancer te kooku noonu la mënee jooy dégg naa ba ma génnee hôpital dafa jooy bañ koy tat fa di ko téye parce que bëggul woon jooy sama kanam xamul nu may def mais mu wool ma sax ay nit gën ma jox courage ni cancer dañ koy faj. mu ah, paase elle a appelé des woo ay malades yoo xam ne dañu dañu dañu faju ñoo ngi wér woon na fa ñaari nit kenn ki ne ma suba ñëwal sama bureau. ma wax la fan ngay dem fii bu fajoo demal dakaar nga faju ma wan la fan ngay dem pour faju Dakar léegi nga wér. ñu dalal sa xel. dalal sama xel mais xam nga xol mooy ñu borom mais maa ngi dem ma ne ah pourtant lii comme que day wér xaaral rek ma dem ma dem fekk sama ñaari doom ñaari doomu jigéen la ma yàlla may ma dem fekk leen ñoom may xaar ma ñëw wax leen ko mais jour boobu kër gi comme dëj ñuy jooy parce que ñoom seen jàng moo gën a avancé sama bos. dañuy dégg dañuy xam. Mm-hmm. ndeysaan ñuy jooy ñuy jooy man leen yéen lan ngeen di jooy dañ leen wax damay dee wala lan la lu xew lan ngeen di jooy lan la di feebar la su ma fekkee sama biddigu dund dinaa jóg su fekkee ma war a dem damay dem sama papa dem na sama yaay dem na sama maam dem na man yàlla laa yàlla laa fi nekkal yàlla moo ma fi yàlla laa fi desee ah, ak yéen ñi nga xamante ne yéen laa jabootee su fekkee damay dee tamit damay dee lan la ngeen gëm yàlla ngeen gën a jàppante yéen ñaar loolu laa si xam leneen lu ngeen fi def tamit da ngeen di sonal seen bopp àdduna bi te yéen yéen ngi màgg yéen tamit bàyyi leen li ngeen def di leen defal waaw di leen encouragé leen nag man maa ngi dem damay dem dakaar ma demee dakaar ma faju foofu instant boobu man liggéeyu ma ñoom aussi seen liggéey dafa arrêté woon mhm. liggéeyatuñu woon mhm. affaire bi xawoon metti ñoom ñu jaaxle su ma demee kan moom war a faj ma ne leen yàlla su dee li ñuy wax dëgg la sama xol dafa set samay waajur dañ ma ñaanal xëy na dina am buntu bu ubbeeku léegi nag laay xam lu ñuy wax ndax dëgg la ndax liggéeyal say waajur wala nit ku baax def lu baax ndax dina am pay maa ngi dem Dakar te man wóor na ma dinaa faju ba faj ñeneen. alors mais guddi gi nga tëdd xam nga c'est normal niñ la dëfalee à il faut nga dëfal ko sa sa njaboot. Mhm. parce que ñoom c'est vrai yaa ngi koy wax jàng nañ xam nañ lan mooy maladie bi. Mhm. mais yow bi nga tëddee guddi gi yow kese. aw ma problème nag li <laughs> ma gis ni man dama gëm yàlla. bi mu leen waxee yàlla moo ma ko teg yàlla moo koy teggi moo fekkee sama diggu dund dinaa jóg falaa ko fekk yeewu man damay julli yeewu 4 heures 5 heures ma da jóg di julli def samay naafi la ma pare woo sama benn frère ku ma bokkal ndey woo ko mu seet lu mu dajale jox ma ma dem dindi xaalis bu takku ni ma demal du su ma nekk dinañ la woo ma woo samay frère ñeneen ñi ñi ma bokkal bàyyi woo leen. ñaata nga yore woon bi ngay bi ngay ñëw Dakar. bi may ñëw parce que xam nga affaire bi dafa xawoon fekk xale yi liggéeyuñu. am lu ma fa bàyyi woon pour ñoom man bi may ñëw bi may dugg si Dakar maa ngi yor presque trente mille sama loxo. trente mille trente mille waaw. ma fay si paas jaar ndar da doon taw ma jaar sama benn rak sama caatu yaay ma jaar foofu si moom fekk mi ngi taw ma dallu ba si ëllëg sa. fekk parce xam nga Covid dañ tëjoon yoonu baat bi mun ñu jàll aw ma kayit buy wan ni dama war a faju si Sénégal mhm. il faut ma négocier ak euh, euh, camp Mauritanie bi pour ñu bàyyi ma jàll parce que nekk naa presque ay 18 heures. parce que ay 17 heures yooyu ñu bàyyi ma jàll. bi ma jàllee fekk oto yee guddi na bu mu guddee bi may àgg ay ndar ma jël oto ndar ma ne pour ma noppalu moo gën damay sonn ma agsi si ëllëg sa Dakar sama kër bàjjen. donc bi nga yegg si Dakar 30 000 yi am na lu bëri lu ci wàññeeku. wàññeeku na ma parce nga si. waaw ma jënd benn mixage ki ma njëkk woo téléphone mën ma naa ñëw bureau mën naa jënd benn mixage mën ma naa defar euh, aloe vera ak euh, leen lu ma waxoon naa ko defar daal ak kii karasol fruit naa koy mixé ma koy naan loolu din ma jàppale si feebar balaa may gis médecin yi ma koy def comme genre curé la aloe vera aloe vera jinjeer jinjeer ak karasol ak karasol fruit bi d'accord nga def ko ak ananas ak ananas di ko di ko mixé ma koy naan di ko naan waaw d'accord ma koy naan ma koy naan après nag ma ñëw dem hôpital ñu ni si liste d'attente laay nekk parce que Covid bi xam nga fekk hôpital dafa fees. ma ñëw fekk sama bàjjan saan yal na ko yàlla yërëm temps yi rek la gaañu ci lomaal di ko jaale famille bi yëpp ma ñëw wax ko ko man ah, yaay clinique métti na de man ko bàjjan clinique laay fajoo te amoo xaalis man ko clinique laay fajoo de damay dem clinique ma woo sam benn doom baay bu nekk États-Unis mu yónnee ma xaalis ma dem dagg ticket dugg. dajeeg médecin bi. mën na waa nga dem ban clinique. clinique Oasis que ki ma woon clinique Oasis la fa jóg. ma dem clinique Oasis médecin bi xool ma ni ma cancer nga àndal mais dañuy def rajo te dañuy def euh, scanner xool bu dee amul fu mu toll su dee am na fu mu yem ñun mën naa man mën naa ko faj te moom professeur bi loolu mooy métier am loolu rek la macha allah. Mm-hmm. professeur bi mën na ko faj. après bi ma waxee loolu man il faut nga bindal ma kayit yu wane nii dama war a fayu ndax ñi ma war a jàppale jàppale ma bindal ma kayit. nga commencé cette fois ci nag waaw naa dem si oncologue bi oncologue bi ni ma damay def chimio. d'accord parce que en fait démarche la pour que nit ñi aussi comprendre que. Mm. du dangay ñëw rek ñu faj la. non non non demeewul noonu dafa une démarche benn procédure boo xamante ne moom ngay suivre. Mm. d'abord nga ñëw ci oncologue mm. léegi mu commencé. mu ñëw ni ma. da ngay def ay da ngay def da ngay def euh, euh, neuf séances ngay def mais da ngay def quatre séances de vingt et un jours ak yeneen cinq séances de neuf jours waaw loolu la séance de vingt et un jours ak séance de neuf jours. mu wax ma après mu dalay expliquer dalay wax xam nga li xam nga paj bu njëkk ba ak paju léegi du benn paj bu njëkk bi moo gënoon métti mais paju léegi bi damay gis ni dafa am amélioration lu bëri moo tax damay ñaan sama ñeneen ñi nga xam ne yàlla nattoo leen la ko ñu amaat leneen lu ko lu ko sut ñun ñu ñu dajee mhm. parce que boo defee chimio doo mën a dox man moo defee chimio damay toog un jour deux jours trois jours ma génn doxi dem sama soxla dem si marché yi dama ciblé woon marché yi nag su ma defee chimio damay dem marché HLM marché Tilène marché Pikine non pour changer air bëggu moon toog kese parce que boo toogee affaire dalay abattre dama amoon courage nag man yàlla moom ma may loolu parce que éducation la ak formation sécurité bi ma doon def xam naa loolu da si bokk dama amoon pas-pas xam ni feebar bi nattu la te war ma woon war ma woon nungu feebar bi teel ma fi yóbbu daal dama waroon xeex ak moom ndax mu bàyyi ma fii ndax ma mën a jàppale sama njaboot gi ba si kanam moo taxoon nga doon dem dem si marché yi parce que en fait amul moo tax yow soxla woon nga ngay dem. ci marché nit ñi changer di laaj prix yi des fois ma jënd dara des ma dugg si grand grossiste yi jënd damay solu nag man sama feebar damay dem sax hôpital ñu naan ma ànd patient bi man leen man may patient bi patient bi man mii man may patient bi man may faju dañuy defal accompagnant la man leen man may patient bi parce que damay solu chute de cheveux bi sama doom moo ma wax. mun ma da ngay am sud de cheveux balaa may commencé dama dem black sama bopp parce que mënoon am sama karaw fu gudd mënoon sama toogee sama karaw du wadd mën na mën na ma tiital waaw ma dem wat ko ba mu def ko black yow nga teel a jëlee devant waaw ah, kay dem wat sa bopp parce que am naa sama benn doom sama caat bu jigéen bi ah. lu bëri moom mu koy wax parce que day dem si internet bi xool waaw su ma amee garab wala waaw su amee garab ak yooyu sax moom laa koy jox mu xool ko wax ma lu bëri effet secondaire rek yooyu waaw mais man bi may def chimio dëgg yàlla méttiwul parce que man ñaari yoon laa wàccu am ñoo xam ne dañuy wàcc ba sonn a garab yi lay accompagner léegi affaire bi xaw na tane daal wàcc bi day tane. waaw biir buy daw bi day tane. tane d'accord eh, parce que moom waroo tëdd. waroo tëdd loolu moo ma may loolu moom ma motiver d'accord en fait lu traitement bi métti métti. Mm-hmm. chimio bi lu mu métti métti da nga war a am une da war a bañ a da nga war a am une vie. dama ne nit vie active. waa kay nit dafa war a am imaan. d'accord surtout imaan nit dafa war a imaan gëm yàlla nii. yàlla moo la koy teg parce que gis nga ko def dara dara darul dee ah sama feebar gis naa ay xale yu ndaw ñoo xam ne dara darul leen ñu yeewu rek ñu ne dee leen waa ñu tàggee leen dara darul leen ñu dee kon feebar ak dee bokkul alors nga nga def mm. chimio bi mm. mais yaa ngi continuer di battre yaa ngi koy wax mm. yaa ngi yaa ngi renseigné wu yaa ngi essayer jël les devants grâce aussi à votre fille euh, mais euh, du ñàkk des fois nga nga toog benn moment nga nga nga nga am nga am lu la métti. waaw parce que am na benn jour chimio bi métti woon. jour boobu moment la yooyu faatu. parce que jour boobu sama caat bi ma lay wax ne dafa am doom bu jigéen à Nouakchott man que da ngeen di tudd parce que bu ngeen tudd rek dañuy wax ni sama feebar dafa grave dama tëdd da ngeen di may nit ñi gis-gis sama feebar bëgguma bëgguma woon sonnal nit ñi man damay def chimio sax kenn du ko xam parce que sama bàjjen bi ma àndoon dafa tiit parce que am sama benn mbokk bu ñu nekk boo defee chimio da ngay dee sama bàjjen amatul jàmm su ma defee chimio du am jàmm. chaque instant def may woo damay nelaw nelaw sax ndax mu bañ ma woo chaque instant daf may woo di xool mhm. est que maa ngi foofu parce que am na ku ko wax ni que boo defee chimio dafay dee mhm. léegi nag par la sama doom bi di tudd jour boobu maa ngi doon def chimio chimio bi métti woon na jour boobu ba ma woo sama benn rak sama caatu pap ma woo ko ni ko tey dara baaxul kooku noor faa la jóge ak ay dawam sama rakk boobu ku jàpp sama feebar la mook sama rak bu jigéen ku ñuy wax Maymuna Moussa ak Maymuna dañ ma gungee si sama feebar bàyyi wuñ ma dañ ma doon woow ñoom bokk nañ si ñu ma doon dëfal Moussa Fall ak mun a Niang ñoom dañ ma doon dëfal si sama feebar dañ ma doon woo tout le temps chaque instant dañ nekkoon présent. jour boobu nga craqué. jour boobu dama sonn parce que jur boobu sama la tànk yi damm na moo doon sama quatrième jour chimio tànk yi damm na loxo yi damm na mënuma julli ku doon jóg di julli di naafila mënuma naafila mënuma julli tisbaar ma toog affaire bi metti ma woo sama bàjjen su ma ko wootee day tiital dama koy tiital dafa am tention ma tëdd. may tudd yàlla nag maa ngi yor sama course maa ngi tudd yàlla fekk woo naa sama rakk bi ma ne ko Moussa tey dara baaxul tey moom bu baaxee rek ma xam ne dootul dootul bon mais tey tey bu ma rëccee ma xam ni yàlla agsi na ndeysaan ma woo ko ma tëdd nag fi ma tëdd nag comme kuy janeer nii rek ma gis suñu waa kër yi waa Tiwaawan yi xam nga man xaw ma leen mm-hmm. maam Alaaji Abdou rek laa si jot xam gis euh, bal xaw mi ak sëñ Babacar ak maam Abdou ñoo ngi sol yu weex ñu mel ne ñu may wëral néeg bi ñu wër néeg bi ma koy gis nii kay nii ñoo ngi sol yu weex ñii wër néeg bi comme que ñoo ngi sol yu weex sama xel mooy mën ñii xam naa dañ ma jël si koon mais bu ñu demee rek ma sentir comme lu am tan sama tànk yi mel na lu bàyyi rek ma ni bërët ma jóg dugg si du jàpp ñëw julli tusbaar bi toog si sajaada bi di ñaan di tudd yàlla di kër ma tëdd si lal bi sama rakk bi ñëw indaale ñaari chiffre ma banaa lan moo la faatu yow xam nga ñoom banaa lañ wax banaa nga lan moo la dal ma tey dama sonn Ibou dama sonn sonn naa trop fekk mu laaj ma sama bàjjen sama bàjjen moom mi ngi doon jàpp mi ngi doon julli nu mu duggoo si néeg bi sax xamu ko dafa bàyyi liggéeyam daw ñëw seet sama ndeysaan sama rakk boobu sama caatoo papa bi ndeysaan ñu fekk maa ngi tëdd mais après après sama ñu après ñu woo ma ñun ma tur bi man lañ ko jox man lañ tuddee tur bi ma ne voilà kon boog dama am relève xam naa moo tax xam naa maa ngi si yoon maa ngi waaj léegi ma dem <laughs> mais xam nga yàlla ni muy def. waaw alors nga def sa euh, chimio bala ngay pare chimio bi mais malheureusement da nga am ablation du sein. Euh, naka la naka la loolu amee parce que def nga sa chimio peut-être waroon na am tan ou bien qu'est-ce qui s'est passé. waaw def naa chimio bu ma demee def chimio wax na man dem naa bay désister opération bi parce que bu ma defee chimio boule bi gisatuma ko woon dafa réer. dafa tuuti. am beneen femme boo xam ne dañ fa doon fajandoo moom mu ni moom affaire alxuraan comme ça parrain bi lu mu ko doon wax. waaw nee moom alxuraan la koy fajee mais jëkkëram moo ko jaaxal li may zikkër nii tudd yàlla tudd yàlla may zikkër may tane pourquoi du ma bàyyi jàpp si loolu rek bokk naa lu ma regretté lu tax ma def ablation bi loolu bokk na si regret yu bokk sama sama vie dama koy wax tout le temps mais sa jaar-jaar aussi mënoo ko daw ma dem ci médecin bi wax ko mun ma non il faut ñu dindi ko il faut ñu dindi ko comme que moo ma a xam ma ne ah dindi kon mais si lu bëri parce que soo defee loolu da def yu bëri da def ay rajo ay rajo poumon ay rajo de cœur ay IRM def ay analyse yu bëri noo affaire bi yoon bi gudd na te affaire bi métti na la maladie est très coûteux c'est très cher très cher et puis faju bi day dem pendant cinq ans da nga koy topp pendant cinq ans yaa ngi topp faju bi faju bi du jeex moo tax nag mu am courage créer association bi la solution lutte contre le cancer pour jàppale jigéen ñi nga xamante ni ñoo ngi seen biir kër yi lu ma leen di ñaan mooy nañu génn dem di dépisté wu di xool di saytu seen yaram parce que ñun xam nga ñun nit ku ñuul dafa tayal doo seet si yaram tant que feebaroo parce que man tant que maa ngi naan paracétamol maa ngi tane du ma dem faju ji d'accord dinañ dinañ ñëw ci volet sensibilisation bi mm-hmm. tout à l'heure euh, mais pourquoi euh, boule bi nga doon sentir wàññeeku na après mu ne la. dafa mujj réer gisatuma ko. dafa mu réer après ñu ne la il faut nga def ablation sa sa sa sa benn ci sa ween yi. waaw mais comme que moom moo xam mooy docteur bi mënu ma parce que amoon feneen fu ma wéeru pour sukkandiku ni lii mën nañ ko faj mais après bu ma ko kiiyee bu ma bu ma ko dindee ba pare laa am regret pour que a dindi ko waruma ko woon dindi. alors nga dindi loo xamante ne dafa bokk ci luy incarner la féminité. Mm. Euh, peut-être ak band yeek yooyu. Euh, choc bi du du graaw torop mais jour bu ñu dindee band yi nga war a seetu janoog sa bopp am lenn ci sa cër lu manqué jour boobu lan nga sentir Fatou. waaw parce que <coughs> pardon parce que bi ñu ko dindee aw ma problème parce que professeur bi ko dindi mooy syndicat dama am sama confiance parce que yàlla moo ko may dafa am don ci affaire opération. Mhm. su ko defee day gaaw a cicatrice du yàgg. parce que man am na ñu bëri ñu ñu opéré dañuy dem ñuy fomp fompaat. man presque une semaine deux semaines laa def yàlla defal ma jàmm ma tane waaw après nag bi ma demee nag ba nga xamante ni wér naa ba pare ma taxaw ci seetu bi noonu boobu jour boobu dama jooy ma ne ndekete handicap du tànk bu dagg du ay du du gumba parce que am na lu denc si man ça veut dire que man ah, handicapé laa instant bi may jooy sama bàjjen bi àndoon ak man ñëw fekk ma si néeg bi di jooy an xamul lan laay jooy mujj ana mun ma lan la man ne ko handicapé laa mun ma yow da nga gëm yàlla yow taalibe nga yow da nga gëm yàlla lii jër tax ngay jooy ah yow la gis ngay dem tant waxoon ni da nga feebar ko xam yow da ngay dem hôpital ñu lay laaj anu patient bi te yow yaay bi gëmal yàlla mu delloo si ma nag wax ak man lu bëri nag ni ma taalibe cheikh bi lu tax ngay jooy bul jooy gëmal yàlla ah yow da am ñaanu yàlla sa morom ñu fi jaar ñu bëri kenn gisutu leen mais yow yàlla may na la yaa ngi am nii da nga war a gëm yàlla ma xam aussi li ma wax dëgg la parce que li tax yàlla bàyyi ma fi liggéeyuma fi lu tax mu ma fi bàyyi mënoon na ma yóbbu tamit li def ma lu tax mu yóbbu ma mm-hmm. mais moo ma fi bàyyi kon dama ko war a sante ñaan mu yokk ma ma wér ci loolu nag ma gën a am courage taxawal kuréel bi ma taxawal d'accord alors mais vous êtes jeune parce que diggante bi ngay wax ak léegi c'est vrai peut-être amoon nga fi borom kër mais aussi aspiré nga amaat borom kër amoon naa borom kër sax am amaat amaat naa borom kër. entre temps avant may avant may am avant may am feebar amaat naa borom kër. quelle a été sa par rapport ak sa ak sa feebar bi. non après moom après fekk divorce nañu bi ma ko waxee moom jàppoon na si combat bi jàpp ay jàpp malgré moom mais après man xaaruma ko woon parce que sama benn mag sama doom bàjjen bi moom ni naa ko woo pour mu jàpp si combat mais man naruma ko woon woo sax parce que comme que divorcé nañu. amul benn amuñu doom aussi amul benn obligation pour man pour mu jàpp sama feebar te comme que maa ngi doon faju samay am di jàmm ak samay samay frère ñoo ngi doon jàppale kon man amoon problème pour faju parce que man bi may jógee Mourtane dama ni moo may wala Boubacar Diallo wala Pape Cheikh Diallo loolu laax samay doom loolu moo ma dugal Sénégal boo demee seen kër yi dañuy wala temps bi amuñu jot si ñooñu laa yaakaaroon ñoo may faj mais gisuma leen d' accord mhm. euh, moo tax il faut que ñu am ay structures yoo xamante ne parce que ñu bëri la plupart du temps dañu foog ne ñi siiw ñi génn télé. Mhm. wala ñi dégg ci rajo bi. Mhm. wala yooyu mënuñu résoudre lu bëri. non non non mënu nekk alors que tel n' est pas le cas. la alors euh, Fatou loolu benn parenthèse rek la woon. nga nga nga nga nga am lu metti loo xamante ne dund nga ko ci feebar bi yaa ngi faju ba léegi ñu dindi benn ci loo xamante ne dafa bokk ci luy incarner sa féminité. lan nag moo andi l'élément déclencheur ba nga ne damay créer cette association la parce que yow balaa ngay créer sa la solution boobu y a d'autres structures déjà qui existent mm. LISCA mi ngi fii mm. Madame kebe mm. def nag association docteur Kassé aussi mi ngi def association prévenir même si c'est beaucoup plus large lan nga dund loo xamante ne vous vous êtes dit xaaral cette fois si ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy dund xeebar bi war nañu boole ci benn kuréel. waaw parce que da xool man bi ma defee opération dama def anapat bi ñu ni jàppul à 100 pour cent 50 pour cent il faut ma defaat beneen chimio ma gis sama benn ma dajeeg benn oncologue bu ñuy wax Cheikh Fallou sal kooku jàpp sama feebar la. parce que kii oncologue bi ma doon defal clinique bi ma defee abla bi ma defee ablation bi def euh, anapat bi dafa mel ni ku découragé woon si sama feebar après. ci sa situation situation waaw comme ku découragé daal ni ma. dama lay jox benn kayit nga dem euh, hôpital Dantec nga xool pour ñu woo la te Dantec boobu mën nga fa toog deux ans trois ans kenn du parce que nit ñi dañu bëri. Mm-hmm. Mm-hmm. am benn femme boo xamante ni ci clinique bi lay liggéey woow ma ni ma yow kaay ma boole ak docteur Sall Cheikh Fallou Sall kooku jàppale sama feebar. docteur Cheikh Fallou. Cheikh Fallou Sall. d'accord ku jàpp sama feebar la. kooku lan la oncologue la cancérologue la lan la. kooku oncologue la kooku bu sañoon kooku bu sañoon benn malade du jóge ci moom te moom fan ban structure la nekk parce que à chaque fois dama lay dégg ci say wax. nga di ko nga di ko remercier. nga koy remercier parce que Cheikh Fallou mi ngi woon dalal jàmm la nekkoon. Ah, mais léegi ñoo ngi ko yóbbu Touba. Touba la dem léegi mi ngi Touba léegi ah. mais nit ku baax la. nit mhm. ku am yërmande ci patient la parce que dalay day dalal sa xel déjà dalay dindil affaire xalaat ay jooy yooyu da koy dindi sa efface sa bopp parce que dama naan boo jooyee da nga koy sonnal ay jooy moom supporté wu ko soo bëggee ñu liggéey da ngay dindi jooy sa bopp mhm. da ngay ñëw ma faj la soo amee la métti nga wax ma su ma la mënee la mhm. waaw ma nekk hôpital bi nag gis malade yoo xamante ni ñoo ma gën a jéggi dayoo gis ñoo xamante ni seen feebar métti na gis ñoo xamante ni daal dañoo sonn damay dindi sam poche di jàppale di jënd ay garab di jënd ay kii fekk bi ma defee opération nee naa sama bàjjim sama damay def association jàppale parce que feebar bi soo amul doole man damay def association mu ne ma mën nga ko parce que xool attan parce tout temps dama koy boole ay malade dama gis malade bu sonn sax moo téléphone docteur Fallou malade mi ngi fii sonn mhm. Fat Fall yaa ngi may sonnal de man ko docteur Fallou kaay jël ko rek mu ne maa ngi consulté man seetal ko ko ñëw yëkkati yóbbu ko ci yow nga xool ko xool ko mën a am soo ko laalee mu tane dama am ci moom yaakaar nag docteur Fallou man dama ko gëm. lu ma médecin wax du dul docteur Fallou duma ko gëm kooku yàlla moo ko def ci man. d'accord te bi ma ko xamee yàggul parce que moom moomu ñëw man ni ma dinaa la faj ba nga wér. d'accord alors waaw dama lay defal ñeneen ñeenti chimio. Mhm. nga continuer fii defal la radiothérapie di nga wér péng incha allah. et puis ba nekk damay woor parce que dama opéré un mois koor ñëw man ko damay woor sama professeur mun ma war a woor parce que da ngay def radiothérapie munoo woor ma dem gis ko mun ma wooral. weeru koor weeru ñaan la weeru yërmande la tàllal sa loxo suñu borom soo mm. wooree benn bëccëg parce que mën ma woor journée toute une journée la soo wooree benn bëccëg affaire bi baaxul nga bàyyi fatfal boo wooree bu continuer continuer nga xam ni nga ñaan yàlla suñu borom feebar bi yàlla teggi lu ko parce que ñin dañuy fañaa ah, mais yàlla mooy teggi moom loolu la wax docteur Fallou mun ma ñin dañuy faj fatfal mais yàlla mooy teggi kon ñaanal yàlla suñu borom mu teggi la sa feebar effectivement ma woor weeru koor ba mu jeex dara dalu ma ma def samay radiothérapie dara dalu ma ba léegi maa ngi toog di wax. alors balaa ñuy ñëw ci volet euh, sensibilisation parce que foofu il faut ñu teg ci sunu baaraam. parce que la situation elle est alarmante. Mmh. parce que le directeur de la santé publique li mu wax dafa dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. Euh, parce que dafa wax rek de façon globale nag ci cancer yi sein col de l'utérus fois bi euh, mais chaque année presque huit mille doomu aadama. Mm-hmm. dinañu ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. donc yëf yi chaque année. day gën a yokk faaw na ñu teg suñu baaraam ci sensibilisation bi mm-hmm. parce que xam naa ni volet sensibilisation bi bu ñu ci liggéeyee yenn liggéey mm-hmm. lu bëri dinañ ko dinañ ko mun a mais sa association ban différence la mun a am par rapport ak yeneen association yi nga xamante ne mm-hmm. nekk na fi waaw damay wax ni mën na am différence mën na bañ am différence parce que comme que man damay wax nii feebar bi psychologiquement euh, boo malaat bi ñuy njëkk jot ñun mooy man maa koy njëkk dalal parce que man su ma gisee day gën a am courage. parce que jaar naa si feebar bi d' abord. parce que médecins yi ñoom feebar ñu ñun ñoo feebar. parce que am na ay signes yoo xam dañ koy gis ñoom mënuñu ko gis buñ leen ko xool parce que suñu yaram la nekk dëgg loolu dëgg. Mhm. parce que na yoo xam ne dañ la ñu bindal la garab. Hmm? kon ñun yenn am na am na yenn réaction ñun ñoo ko xam ñun ñoo ko mën a waxtaan ak askan bi parce que ñoo ko dund nit ki lu mu dund ak lu nit dundul du benn. ñun ñoo ko dund ñun ñoo mën a dem vers la population waxtaan ak ñoom man nag loolu moom ma motivé def association bi pour nit ñi gis ma pour ñu mën a pour ñu mën a génn dem am chance ba am chance boo xam ne man aw ma ko woon parce que coono gi ma am bëgguma ñeneen ñi am ko. d'accord su ma sañoon benn waaw bu ma sañoon coono gi ma daj sama feebar ak euh, wut koom-koom bi ma doon pour pour faju ñoom yàlla bu leen ko yàlla teg. pour yow premier chantier bi parce que dañuy dañuy commencer léegi ci état bi. Mm. ndax aussi le chef de l'état am na ay acquis yu mu yu mu def ay jéego. Mm. Euh, tout récemment rek ñu ngi naan li ñu euh, accordé woon par rapport à la gratuité. Mm-hmm. chimiothérapie bi yokkaat nañ si. Mm-hmm. donc xam nga loolu aussi. baax na lu ñuy lu ñuy applaudir la. Mm-hmm. mais à côté dañu naan déjà médicament yi dafa cher. démarche bi dafa metti pour yow. ci wàllu prise en charge d'abord malade bi. ban jéego. lañ ci war a def ndax déjà ñu ne la feebar bi rek am nga ko dafa metti mm-hmm. dafa metti c'est c'est un véritable choc mm-hmm. mais avant cela par rapport même ak accueil bi prise en charge malade bi pour yow fan lañ war a gën a accentuer xeex bi xeex bi mooy ñun bu ñu sañoon dañuy ñaan rek euh, borom réew mi ak keneen ku fi ñëw tamit buñ bu ñu sañ ñu def ko gratuite parce que feebar bi li mu laaj dafa dafa metti parce que même bu dee njiitu réew mi ni euh, euh, ñu koy waxee njiitu réew mi dugal na ci loxoom day des parce que chimio vingt cinq mille bu dee da ngay yeewu sa kër yaa ngi war a ndékki amaloo ndékkee nga war a fay vingt cinq mille foo koy amee c'est vrai mënoo ko am nga war a fay radiothérapie cent cinquante mille amoo cinq mille francs nan fayee cent cinquante mille radiothérapie mhm. amoo foo ko fayee mënoo ko fay parce que boo amul ko la jàppale mënoo fay cent cinquante mille dañuy xool ak suñuy taaba taaba ak suñuy bon volonté yi ñuy jàppale pour ñu mën a fay nit ki mu def radiothérapie def scanner à cent trente mille. scanner da ngay opération ay quatre cent mille six cent mille. loolu fekkee nit koo xamante ni amoo dépense boo bàyyi sa kër noo koy defee ak suñu mbokk góor yi nga xamante ne ngay feebar ñu bàyyi la dem seen yoon doo leen déggati. gis naa ci euh, malade yoo xamante ne dañ naan am sama jëkkër dafa dem bàyyi ma amatuma ku ma jàppale maa ngi ànd ak samay doom xam nga loolu dafa metti mais ku nekk lay dal. di wax sama mbokku sama mbokku góor ñi rek ak ñi ma ko war wax nañu appuyer ñi nga xamante ni dañoo feebar parce que nattu ñu dagg sa cër ku nekk mën nañ dagg sa cër alors parce que mën nga dem génn oto oto pel la ñu dagg say cër nga dem accident de travail fi ngay liggéey sa liggéey ñu dagg sa cër fekkee kenn daggul sa ween loolu yëpp gis nañ ko fi absolument calvaire la ci ci jigéen ñi dund feebar boobu mais aussi dama bëgg benn lan benn benn plaidoyer rek booy def à aussi parce que am na ci jigéen ñoo xamante ne dañuy tàmbali seen traitement mais comme comme vous dites c'est coûteux c'est ñu jékki-jékki rek bàyyi. Mhm. dem toog ban ban appel nga leen di nga leen di lancer Fatou balaa ñuy ñëw ci sensibilisation. waaw man lu lu mu leen di wax rek mooy na ñuy ñu ñuy ñëw envers koo xam ne ku mel na Fatou Fall comme man parce que léegi ñoo ngi xaw a bëri. waaw ñi nga xam ne dañoo feebar def association ñoo ngi xaw a bëri nañu nañu dem envers ñun suñu leen mënee jàppale jàppale leen su dee psychologiquement mën na mën na mën leen mën nañ leen travail ba ñu dellu sax parce que gis naa ñoo xamante ni buñ ma gisee waxtaan ak man dañuy gën a am courage pour dem faju ci am na ñoo xam ne dañuy xaw a désister mais suñu ma gisee dañu am courage faju am ñoo xamante ni duggaguñ si faj bi mais bu ñu waxtaanee ak man rek dañuy gis ñu farlu dañuy farlu parce que dañ may gis parce que dama lay wax ne def ma appel wala nga dem hôpital ma fekk la fa nga gis ma ma ne la man dama am ñoo xam ne du xam ne dama feebar man leen man feebar bi ngay dund moom laa dund da ngay ŋaa di ma xool man la moom laa dund mais dama gëm yàlla yow aussi il nga gëm yàlla wax la nag li ma docteur Fall wax bàyyil jooyi jooy boo koy def duñ mën liggéey jooy bi da nga koy teg à parce que da ngay xool nit bu jooyee bu dee sentimental nga sa journée day yàqu doo xam looy def mag da ngay bàyyi jooy bi nga xool sa njaboot xool ñi nga bàyyi sa ginnaaw pour nga am défi boo xam da nga ko a relever si feebar gis la pour ñoom tam ñu ma parce que mm. même boo demul ci média bi demoo ci kii am na say dëkkandoo yu lay gis parce que démb am na benn femme bu ma woo ni ma am na benn dëkkaale mi ngi koy dund pendant 14 ans xam ne dañuy jëm si yàlla jël na ko yàlla yërëm la femme de Bougane yal na ko yàlla yërëm te xaar ko balaa ñuy jeexal incha allah dinañ suuf yow si koom am na koo xam ne dafa ni ma femme bugaan ngeen ni 9 ans mais man maa ngi dëkkandoog benn femme boo xam ne 14 ans mi si ànd man gis naa koo xam ne 20 ans mi ngi ciy ànd dox saxlaam di dem am ay projet di dox saxlaam di dem absolument duma tudd tur il faut il faut se battre mhm. quelle que soit mhm. difficulté yi mhm. et et sax dara yombul dara yombul lépp jafe mais mais mais taxul nag ñu minimiser li nga xamante ne moom mooy métit bi ak euh, coono gi nga xamante ne da nga koy daj ci feebar bi euh, jafe-jafe yi ñu yi ci yi malaat yi di di di jànkonteel alors très rapidement par rapport à la sensibilisation parce que palpation am na solo torop mm. mais par rapport ak ñun suñuy quotidien mm. suñu suñu suñu vécu mm. Fatou yaa ngi janoog jigéen ñi parce que sànq maa ngi koy wax euh, le directeur euh, de la santé publique il a tiré la sonnette d'alarme chaque at plus de douze mille sénégalais dinañu am cancer que ce soit type bu nekk nag te chaque année dafay gën a jéggi dayoo. Mm-hmm. donc xëy na am na ci suñu alimentation. Mm-hmm. ci suñu doxalin. ci mm-hmm. sunu nekkin loo xamante ne ñi ngi koy def. lu mun a jur wala favoriser doomu jàngoro bi. lan nga leen di lan nga leen di wax. waaw man daal li may dénku sama moromu jigéen yi nañu bàyyi yenn lekk yi di ko lekk comme suukar bu bëri xorom su bëri wala comme da ngay gis comme ni may wax lekk bu neex xam nga lekk bu neex ñëpp ko bëgg mais mënoo togg sa ceebu jën bu nit mat nga jël sa njaru soow bu saf dóor ko ci. xam nga ceebu jën ak soow àndul soow ak jën àndul mhm. nit ñi dañ koy def te baaxul te même médecin dañ koy baaxul nit ñi moom la ñuy def da ngay lekk sa ceebu jën bu neex jël sa njoor soow nga lekk lu niin nga teg si glace bu sedd nga lekk lu niin au lieu nga jël tisane bu tàng jël lu tàng lu au chaud dafa baax lu tàng nga koy naan dafa baax lekk yàpp jël sa boisson bu sedd naan ko lu tax doo def sa benn tisane de thé wàccee graisse bi au moins. naan ndox mu sedd surtout. naan ndox mu sedd dama dama am tàngat. dama am tàngat il faut ma naan man ndox mu sedd du ma ko naan rarement laa koy naan man bidon yi laay jënd di ko naan sans def publicité du ma naan ndox mu sedd bu tàngee même su ma koy naan dama koy njar ba nga xamante ni sedd bi duma ma parce que léegi su ma ko naan si damay am saqat. bouillon yi. waaw yooyu aussi il faut que ñu wax ci. même bouillon yi aussi nañ ko wàññi parce que man ni nga may gis nii lu mel ne comme euh, li ñuy ndekkee yëpp lu bëri dama ko bàyyi. jëlatuma ko. lu ci mel naka. léegi léegi d'habitude sa ndékki lan lay nekk. man sama ndékki comme pour ñu xam même parce que ñi feebarul. waaw c'est pas parce que feebaroo. waaw que waroo jël yenn. waaw da nga war a moytu parce que man instant bi suukar dama ko bàyyi parce que suukar bu weex bi jëlatuma ko man suukar ruu bi lay. suukar ruu moom lay jël léegi te tuuti laa siy jël. Lipton laay dëkkee wala Kéngéliba. te ñuy laaj sucre roux. waaw ah. foofu dem. waaw ah. même suñu compagnie sucrière bi pour ne pas fait de la publicité génne nañ sucre roux. waaw génne boo xamante aussi cherul. cherul nit mën na ko jënd mën ko jënd. waaw man moom laay jël xorom bu bëri bëgguma ko yu saf safa yi bouillon yu bëri ñuy def man dama ko. wàññi looy ndékkee dute. voilà dute laay ndékkee wala Kéngéliba. wala kii wala wala Lipton. wala lifton kéngili waaw moom mooy dute waaw waaw euh, des añ añ beeg reer bi waa añ bi aussi man euh, damay lekk bu bëri daal man dama ko wàññi d'accord comme am na ñoo xam ni même loolu alxuraan bëgg ko lekk ba nga xamante ni mënatoo noyyi loolu baaxul il faut l'éviter ni da ngay lekk lu yem sa mais gis ñu teg bernde rek nga lekk rek ba xamante xamatoo fooy teg sa tànk loolu aussi nit ñi nañ ko bàyyi parce que nit aussi yaa mag mag moo mën a faj boppam alors beneen beneen bu gën a grave léegi xale jigéen yi pour am des formes beaucoup plus plantureuses mm. léegi dañuy jël ay produits mm. di ko diw seen yaram mm. ci seen yenn partie nee nañ pour jox yenn effet yi xam nga yooyu njeexital bi mun na indi lu lu doy waa ci sa ci sa santé am na ci ñoo xamante ne sax dañuy dem ba jël suppositoire di ko utiliser yaa ngi janoog ñoom ban appel nga leen di lancer parce que yaram aussi boo ciy def da ngay xam li nga ciy li nga ciy def yenn forme yi bu ñu ko gisee ci tubaab yeek yooyu c'est parce que dañu dem ci un chirurgien esthétique wala mhm. yooyu loolu moom moo mun a def loolu mhm. mais nga bëgg a jël yenn médicament yi di ko dugal sa yaram te xamoon njeexital bi bi bi bi mun a indi aussi ce sont des choses à éviter te léegi dafa dafa nekk à la mode waa léegi man lu ma mën a wax sama doom yi ak sama rakk yi ak ñi nga xamante ni ñoo ngi koy def nañ ko bàyyi baaxul parce que am na benn marché foire bu doon jaay dama doo gis nit ñi di ko jënd mais dama leen ko doon tere te boobu xamoon sax lii daf may dal ma naan lii bu ko jënd baaxul loo xam da nga koy diw sa yaram muy yokku te demoo ci médecin kooku mën na la indil tey am ay effets secondaires te gis nañ fi mu am ay effets man xam lu bëri man du ma ko def man yàlla daf ma bindee man dama bëgg lu lu lu effacé man bëgguma yu bëri du ma ko def. d'accord comme yi jigéen ñi def nii ay yokk wee yokk sa bët yokk sa kii man yu yàlla dimbali yooyu man yooyu du ko def. bu ko yàlla jàppale na man xaw ma ko du ma ko def. parce que dama naan lépp loo xam ne dama koy yokk dama naan baaxul si man du ma ko def waaw leen wax daal loo xamante ni daal xamoo ko bu ko def te nit ki indi fii sent dafa baax mhm. nit lépp looy def sa biir na nekk lu wér lépp looy naan na nekk lu wér suñu bouillon yi ñu am suñu bisaab yeeg buy nañ koy jëfandikoo waxuma kenn nag bu mu naan jus de fruits mais suñu jinjeer yi yeeg bisaab yi daal man daal su mu amoon ku koy def moo a gënal man daal moo ma gënal ma koy def ñu koy naan daal ñu koy defar naturel ñu bañ ci yokk dara nañ ko def naturellement bañ ci yokk dara beneen appel bi parce que mm-hmm. dañ on parle du cancer du sein mais bu ñu mm-hmm. fàtte col de l'utérus mm-hmm. parce que col de l'utérus bi li muy gaañ moo ëpp cancer du sein mais ñoo ngi koy faj moom euh, ñu ko ñu koy faj bu baax mais dañu nekk ci société boo xamante ne dangay bëgg lu neex sa borom kër bëggu jongee euh, la polygamie aussi dugal si loxoom ba jigéen ñi di def loo xamante ne waruñu ko def loolu aussi ban ban appel nga leen ci lancé waaw loolu ñu def ñoom amul leen benn njëriñ mhm. amul leen benn njëriñ parce que loolu boo ko defee bu neexee bu yàqoo bu góor gi dem la kon lan la lay jëriñ amatul sens parce que ngay defal bu dee amul dignité am amul amul euh, amul ni nga ko sax amul fulla boo xamante ni war na la mën a accompagner sa feebar parce que nit nit si aussi say neex na mais bu lor sa bopp mhm. même loolu diine da koy wax bu lor sa bopp defal loo xamante ni yàlla moom la wax ak sa jëkkër loolu la bëgg mais même sa jëkkër bi nga koy defal waxu la nga dem def ko yow yaay dégg benn groupement des femmes seen affaire réseaux sociaux yi dugg si réseau boo xamante ni kaay jigéen am na kaay jënd lii kaay man daal dama leen di conseillé lépp lu ngeen def dul mbaaxu maam bu leen ko def parce que mbaaxu maam yaa ngi fi ah, yoo xamante ni ay bio la mën nañ ko def te loolu baax na si jigéen lan moo gën a gën a am solo sax set rek waaw set kese yow ceeb ba kay naan loolu da dalay faj aussi publicité day cet al dànk bi faj da koy naan te loolu amul benn efe effet secondaire pourquoi ngay jël leneen di ko def sa kanam di kii te kanam dafa fragile loo si def mu yàqu su yàqoo ki nga ko defal mu dem bàyyi la da lay bàyyi ah seet keneen ku la gën a ndaw ñoom ñoom loolu la ñuy def góor ñi soo yàqoo rek ñu seet ku gën a ndaw. <laughs> waaw loolu seen programme la merci beaucoup Fatou même si sunuy sunuy càmmiñ la mais li waxtaan la entre ñun jigéen en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau euh, di la souhaiter bonne pour ce combat. Mm. un combat très très noble. on espère que li nga si yaakaar yëpp di nga ko si am hmm. incha allahu rabbi lii di cancer dina gën a reculer et on espère que jigéen ñi ñuy déglu dinañ gën a farlu ci yóbbu seeni doom ñu am diggante 9 ans ba presque 14 ans ñu dem ñu vacciner leen nañu bàyyi yenn wax yi nga xamante ne dañu koy wax ndax gis nañ li nga xamante ne moom mooy euh, résultat yi vaccination boobu amal ci yenn ci dëkk yi et on espère que bu ñu defee plaidoyer bi auprès des des femmes. Mm. dinañu dem yóbbu seeni doom ñu ñu ñu vacciner leen euh, kàddu gu mujj gi lan lay nekk. waaw man kàddu gu mujj gi mooy lan rek damay wax ni sama mbokk jigéen ñi ñu génn. Mm-hmm. dem di dépister wu di saytu seen yaram. pourquoi ñuy toog di xaar ba feebar bi ñëw nañu génn dem di xool seen bopp parce que nit ki da nga war a di saytu sa bopp di xool sa yaram. man loolu laay ñaan sama mbokku jigéen ñi parce que man état bi ma toll bëgg naa sama yeneen moo bi ñu bañ ci àgg ci état boobu parce que loolu laa leen di ñaanal parce que boo dundee dara danga koy xam bëgguma ñoom ñu àgg ci état boobu nañu génn dem di xool seen bopp di saytu seen yaram euh, di gërëm nag askan fi ma jógee mooy sama mbokk waa Matam yi waa podoor maa ngi leen di nuyu. di nuyu fi ma jógee Liberté 4 di nuyu sama euh, sama xalif général. bu Cheikh Baba Ñong bu Alaaji Baba Ñong ca Podor. di nuyu sama doom bi nga xam ne moo a defal sama kanam ak sama musóor ñu koy wax Aïssata si Liberté 4. di leen jaajëfal yéen waa 7TV. set tv <laughs> maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla may leen ngeen continuer seen ay projet yoo xam ne allah dañ leen di suivre vraiment dañ leen di suivre. ay émission yu am solo ngeen di teg di wax ni bonne continuation di ñaan yàlla na fi jàmm yàlla na fi jàmm sax yàlla na fi feebar bi dañ ci barke Seydina Mouhamed ba xamante ne doot ñun loolu mooy suñu combat feebar bi yàlla bu ko fi yàlla yàlla jëlee mu bañ fa amati ñu bañ ko déggati même buñ koy dégg fekk par benn benn la mhm. waaw parce que dama bëggoon sañ jigéen ñi ñu dem ji saytu seen yaram moo gën parce que boo saytu seen yaram rek mën nga éviter lu bëri sa yaram parce que jigéen dafa a toog te toogaay jërëjëf parce que sonn nga ci invitation bi woo nga ma woowaat nga ma jàpp si di ma woo di ma encouragé kon dañ lay ñaanal yow tamit gudd fan yàlla may la nga continuer sa li ngay def amiin merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup en tout cas Fatou euh, pour ce plaidoyer on, on va continuer à nous battre pour gën a sensibiliser pour euh, li nga xamante ne moom mooy feebar bi reculer ni nga ko waxee sànq jot na ñu rendre aussi hommage à une dame koo xamante ne dañu bokkoon fi nga xamante ne moom mooy groupe de média muy soxna euh, Bougane Gueye Dany muy Momy Bousso Seck Gueye moom tamit ñu koy ñaanal yal na ko sunu borom xare àjjana di ko jaal tout le groupe des médias tout la presse sénégalaise waaye rawatina waajuram bu jigéen ak borom këram c'était pour ce soir merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de votre émission si près si loin jaajëfal team bi Papis euh, Issa Kébé tey moom moo manqué à l'appel on on espère qu'on va le retrouver la semaine prochaine incha allah góor ci montage bi passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes jërë ngeen jëf. On a passé un jour ensemble, je veux plus que ça. Et tout le